Dakar, notre plateforme d'information. asalaamaaleykum amis et fidèles internautes yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy bàyyi xel à travers site internet yi fi nekk yëpp ku ne xam na ni euh, Dieyna Baldé moo woote euh, doomu Kolda l'enfant chéri euh, ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal jàmm sister di la wax heure ménage. merci beaucoup di delloo ziar bu baax a baax di ñaanal ñëpp. Mhm. di kontaan tamit ci ñëpp franchement gis naa gis naa lépp daal. gis na lépp mais est-ce que du loolu yaa ko liggéey ci Sénégal parce que Dieyna euh, bi xew mi amee bi ma dégganteeg Fifita dañu ma Abdou Saliou Dieyna nee na xàjjiwul kenn na presse bi yëpp ñëw parce que bés bi seen bés la. waaw c'est parce que ñun ñëpp benn lañ te àdduna amul solo donc sénégalais yi mun naa ne sax nit ñi du ma ne sénégalais yi contentement bi ñu am man peut-être jiwu ma leen ko mais ñoom ñoo baax seen baaxu bopp rek. Mhm. donc di ñaanal ñaar euh, nit ñi aussi. ñu am jàmm bu baax a baax di leen xamal ni ko tamit kontaan naa trop trop trop trop. Mhm. parce que depuis bi ñu yëgee nouvelle bi ba léegi franchement appel bu ne maa ngi koy jot message ñoo ngi posté ñi nga xam ne xam nañ ma xamuñu ma ñëpp ñu ngi posté cela veut dire ko kontaan nañu. Mhm. donc di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm. sa relation ak sa wayjur bu jigéen def la gis rek commencé tuur ay xewal yow tamit mënoo téye téye sa rankoñ ban lien ngeen am yéen ñaar. waaw sama yaay kooku mooy sama xol parce que bi ma ñëpp bàyyee moom moo ma bàyyiwul mu jàpp ma. di ma soutenir lu mu am jox ma di ma dolli xel di ma yokk xalaat mm-hmm. xalaat nag ci côté positif mm-hmm. voilà donc ma koy ñaanal mbaalo baan naa yàlla may ko gudd fan ak wér gu yaram parce que lii nii bis bi ma am tey lii rek la doon ñaan yàlla mm-hmm. saa yu ma woowee loolu la doon ñaan saa yu jullee loolu lay ñaan donc yàlla may na ko ko ma gis ko nag moom mu gis ma rek jooy ndax man xam naa li tax mu jooy moo ma jooyloo lan moo ko ko wax <laughs> waaw mais tey loolu mun a ñàkk parce que yaay ak doom la euh, mais sa ki nga xamante ni moo di sa boroom kër donc doon nu personne très effacée euh, mhm. tey ñu gis mu génne démb euh, benn son tuddee ko validé mu mel ni jikko yi nga xamante ni moom la Dieyna Baldé làmbool ci mbaax ci yar ci jikko yu baax la génne ci son boobu. waaw loolu rek dama koy nuyu moom bébé Damour faal mi yàlla faale ki nga xam ne moo ma sagal. bàyyi fi ñëpp takk ma. Mhm. donc kooku aw ma fayam vraiment li mu wax ci son boobu nag dafa ma bett man xaw moo ni ko sax dina ko génnee dafa jékki saa rek ne ma duggal sa whatsapp ma dugg xool mooy loolu. surprise donc ma kay ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan ak wér gu yaram. Mhm. yàlla jubóole ñu may ñu njaboot gu barkeel incha allah. Mhm. ñaanal lan ngay dénkaat sa moromu jigéen yi nga xamante ni ñoo nekk ci milieu bi di door a dugg ci néegu sëy. waaw ma leen di. damay ñaanal ñëpp daal parce que instant yi moom moom amaguma conseil bu may jox ne ndax maa ngi doog a dugg donc di remercier sama nit yi nga xamante ne samay sœur samay xarit ñi nga xamante ne bu ñu ñëwul woon sax du ma mel mhm. ndax dama leen dugal sama biir xol donc ñu ñëwal ma xeebaluñ ma sama gis bii depuis boobu arrêté wuñu di ma woo di ma message c'est la première fois ngay gis xew bu ay artistes def ay hôtesse man je crois mosuma ko gis ñu wàccee seen bopp xam nga jàppee ma ni seen boobu boobu ba léegi li ñu déggante sax yu bëri mais ñoo ngi déggoo seen biir xam nga di jéem a def affaire yi mu nice mhm. vraiment aw ma seen fay yàlla na yàlla may guddoo fan ak wér gu yaram liñ ma lebal nii nañ xam ne ni que lebal nañ ma teraanga nañ. Mhm. jëlañ ma ko dinaa leen ko delloo. moo ngi jàkkaarloo yow comme li ma waxoon sànq rek nee naa ko merci beaucoup mon amour su ma waxee wa euh, juum. ci loxo Seydou kontaan na lool. taalibe Baay Ñas yi nga xam ne ñoo ñëwoon ñëw ci jumaa ji ci ndigalu Baay Ñas kon kontaan na na ba bis bëj ba mer mukk na lool jërë ngeen jëf amoon lu muy wax jërëjëf ah jërëjëf moom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 ci la xam ne maam ah ginnaaw man waxkat laa te waxee sama métier mu ne kon boo xaaral ma wax ko mu na loolu bu arrivé day gàttal. bala muy gàttal nag nee na day nuyu Balde. bi mu xamee Balde ba tey mësul changé nit ku baax la. te boo nee nit ku baax la waroo cee teg leneen. Mariama Balde.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 ndax Seydou mii ba muy ànd ak Maymuna ba tey Seydou musu Seydou musu leen a boole ak jabar jabar ji it musul ñëw boole te bu demee erreur ba ñëw ci kër gi nee na teraanga lay am ci kër gi ba kër muy gën kër yaayu Seydou ñëw na fi nee mu gisee muy traité yaayu Seydou la gën a xam ni Maymuna mii nit ku baax li ko doon wax ne dëgg la.